dal leen jàmm lu aju ci élection au conseil de collectivités territoriales boo moyul njiitu réew mi Macky Sall dina ci wéet lool ndax opposition bi maanaam intercoalition Yewwi ak wallu ñoom ñoo mànkoo ne duñ ca bokk ndax gisuñu njëriñ ci bile au conseil des collectivités territoriales ay kàddoom ci Walf Quotidien Déthié Fall xam le ne au conseil bile jaadootul mu ne fi ak fu réew mi toll ci jafe-jafe mbënn maa ngi ne kërt na jonte ba tey saafara amagul dundu gaa ngi ni cher lool askan wi dëkkee di jooytu tey nguur gi bëgg fab ay milliards yi dugal ko ci au conseil des askan week wàllu gis ne loolee jaaduwul leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien moom Déthié Fall xam le ne saay bu ñu demee ci assemblée nationale la ñuy njëkk a def mooy amal proposition de loi gu fi mun a jëlee ba faw bile au conseil yéen a bi la témoin feelu ko ci beneen conseil di conseil constitutionnel mi nga xamante ne waa yeeweek wàllu jot nañoo ñaawlu doxalinam sóoraale tuñ ko bu ñu sukkandikoo ci Déthié Fall ne dañoo doyal sëkk ci bile conseil a jàll ci élection yi lu dul fab conseil constitutionnel ko par zéro ñu fekk waa Yewwi Wallu ci biir yéen a di libération daal dinañu xamle ne du ñu jeebal benn yoon recours conseil constitutionnel ndax na muy doxe moo dalul seen xel Déthié Fall ne bile conseil constitutionnel yeeyowul benn yoon jox leen recours ndax ñoom ñoo njëkk a salfaañe élection yi te lu bari xew na ci yile wote ay rëq-rëq yu bari am na ci te booba léegi kenn déggu ci conseil constitutionnel ci biir yéen a di libération Cheikh Alassane Sène mi doonoon candidat ci élection yi ma ngay yéeglu dina jeebal recours conseil constitutionnel ngir am benn député ca assemblée nationale Cheikh Alassane Sène ci libération gis ne dañoo bëgg a foqar ci la mu jot a góobee ci élection yi ñu weesu ne lu muy yees yees am na ci benn député ñu bëgg ko ko xañ ci biir yéen a kaabir waa grand place waa opposition dal dinañu xamle ne ci élection au conseil des collectivités territoriales gi ñu jëm ñoo ko xañ seen bopp ne xel xalaatul ñu bokk ca ndax bile HCCT dafa amul njariñ ci askan wi Abdoul Mbaye jommi jomet la def ne tey nguur gi fi ne mu ngi bëgg taxawalaat lii di au conseil jox xëy ñoo xamante ne yeewuñ ko rawatina bëgg a loxo maanaam jox mbaxuus seen i militant Mamadou Lamine Diallo njiital mouvement tekki gis ne bile au conseil tekkiwu fi dara ba ko ñaareel wax ji lu ko guddal la ko gàttal la ko gën nañ fi jëlee ci ni mu gën a gaawee au conseil des collectivités territoriales yéen a kaabidi l'info ne ndax waa yeeweek wàllu kontaanuñ ci benn yoon ci waxin jot nañoo taal jéppét au conseil des collectivités territoriales ne duñ ca dal xel xalaatul ñu bokk ca Déthié Fall lay wax keneen ku wax ci biir yéen a kaabidi l'info di Mamadou Lamine Thiam bu PDS daal di fàttali ne ñay jóge ci a Yum xam le ne coow li coow li mooy opposition bi neewal na doole lool nguruk Macky Sall yéene kaa bi di Le Quotidien ne au conseil des collectivités territoriales doole ma ngi wàññeeku mu ngi gën di néew te moo ne de ñeenti fan ci gi ñu jëm ca lañu war amal woote ga ca jëm waaye coalition Yewwi ak wàllu ba ci gëm sa bopp ne gëmuñu benn yoon bi le au conseil de collectivités territoriales nañ ko fi jëlee du mooyu nañ ko yéene kaa bi di Le Quotidien di ñu fàttali ne ñaari coalition yi le ñoo ko nar a woote muy coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition Natangué Askan Wi ñoo cay dem élection xamal nañu askan kuréel a ngi ni amaluñu benn yoon njëriñ askan wi muy au conseil des collectivités territoriales mi Aminata Mbengue Ndiaye jiite ak conseil économique et social et environnemental bu Idrissa Seck jiite Déthié Fall ne ñaari kuréel yi le lekkukaayu xaalis la te koppar googee xejoon na feneen ci askan wi Bougane Gueye Dany ne saafara si mooy nañ leen fi jëlee ca na mu gën a gaawee yéen a kaabidi man naa ne mangoog intercoalition wàllu ak yeewi rawatina Bougane Gueye Dany daal dinañu nermeel woote gu ñu jagleel ñu war a bokk ci au conseil des collectivités territoriales Ousmane Sonko ak ay ñoñam ne bu leen ci kenn séentu yéenekaay bi di enquête ne ña doon séntu PDS ci yile élection ndax dina ci am dooleem déet doole gu mag a mag la jëlee ci yile wote daanaka PDS moo ci ak ndax jot naa am lu toll ci ñaar fukki député ak ñeent yéenekaay bi di Direct News ne Pape Diop lay doon ci quatorzième législature gi ñu waajal waaye ñëpp a ngi am jiixi jaaxa ci moom ndax day dem ci ku jéeg politique bi wala boog day fekki njiit réew mi Macky Sall ci mouvance présidentielle Direct News ne tey jii la fas yéene gindee askan wi moom Pape Diop dina ci amal déclaration gannaaw ngan nga mu amal yàggul ca Touba Direct News gis ne xëy na moom Pape Diop dafa demoon ngir yeggee xalif général des Mourides fa mu nar féete diggante nguur gee ku jéeg politique bi Direct News ne Pape Diop mi lee njiital coalition bokk gis-gis liggéey ndax député guy féete ci non aligné yi lay doon wala boog day dem dugg ci benn groupe parlementaire yéena kabidi Direct News ne Makar Ndiaye dugg na ci tolluwaay réew mi ma ngay dànkaafu njiit réew mi Macky Sall ne war naa jàngee lu bari ci élection législative yi ñu weesu Makar Ndiaye yemu ca ne waxtu wa jot na njiit réew Macky Sall diisoo ku jéeg politique bi ak waa société civile ngir mun a lu baree bari ci réew mi moom Makar Ndiaye yi ñaawlu nañu gàntale liste titulaire bu coalition Yewwi Askan Wi Direct News gis ne Mankeur Ndiaye mile mu ngi ci yoonu fekki ku jéeg politique bi géne cabinet Sud Quotidien xëy dañu jàngatal bi le législature géne cabinet député ca jota ci fanweeri fan ci weeru sulet gi weesu seen chance demeewu ni ndax Sénégal a ngi waajal élection présidentielle ci weeru février te buñ ca yeggee saay bu amee keneen ku wutu njiit réew mi Macky ngir taxawalaat geneen gu bees ba tax na yile député yi ñu fal bees seen ndombol tànk mun naa bañ a yàgg yéena kaabi Sud Quotidien ne ndajeb conseil des ministres yi weesu gannaaw élection législative yi daanaka yooyu lay ndajee yàggatuñu ndax njiitu bi Macky booba léegi neexootul ak ay ministre am leen di xool ñu koy xool yéena kaabi ne ci ndajeb conseil des ministres gu géey lool masla amu fa te booba léegi kenn xamul ana la njiitu bi Macky di tànn wut le vrai journal ne ndax loolee nguur gi mun na ko dakkal ci saasi gannaaw bu ñu gisee ne mu ngi ci tànk waa mafia kàcc-kàcc am ñu ci jot a teg loxo ba yóbbu leen kaso waaye terewul ba léegi ñu ngi jalgati maanaam di détourner inu journaux yi le vrai journal bëgg xam ana yan matuwaay la nguur gi mun a jël ngir mun a dakkal bile mbir jeune kabidi lo soleil ne tabax yi daanu ba léegi dakkagul ci mim réew askan waa ngi ciy daj coono yu mettee métti ay bakkan di ci rot lo soleil di ñu fàttali ne jot nañoo xaymaagum lu toll ci junniy tabax yu toftal ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn yoo xamante ne saay su ne mun nañoo daanu Soleil du ñu xamal ne lu ko dalee atum 2021 ba 2022 gi ñu ne lim bu tàkku ci ay bakkan rot nañu ci ay tabax yu màbb seen kaw yéen ne nawet gi bokk na ci li ko sabab ndax taax yu bari dañu gajaf ba faf daanu ci ña fa dëkk amatuñu jëmukaay ndax dëkkee di jooytu luwaas gu cher ba tax na mënatuñ faa jóge am ñu joxoñ baaraamu tuuma boroom kër yi ne nañuy tabaxee seen kër moo jaaratul ci yoon yéen cabinet suñu làmb xëy jaar ca écurie Fass ma Gris Bordeaux nekk gannaaw défaite ga mu jëlee ci digganteem ak Balla Gaye 2 Abdou Gueye di directeur technique bu Fass ma ngay xelal Gris Bordeaux ne bu sañoon Gris Bordeaux taxawal écurie boppam te bàyyi Fass yéen a kaabidu ak Grand Place ne ba tey Barça wala Barsax ndaw ñi bàyyeeguñ ko ndax lu toll ci téeméeri doomi aadama ya ñuy wër ci jamono ji te kenn mënagu leen a tëg bët ci biir ndox mi yéen a ñu fàttali ne seen gaal googee gannaaw bu mu fi bàyyee ko ca Rufisque ëpp na weer te jotut a teer ca Espagne am ñu njort ne xëy na gaal ga dafa